asalaamaaleykum fay naa la eh, man la Omar Touré di député maire Banjul bi at time di woot councilor Crabalien woot eh, Sahel ñoo fekk si ma fii di suma koñ di jëm Sénégal jërëjëf. Ah, waaw ñu kontaan trop ñu kontaan trop tey moom honorable ah, Omar ah, Omar Touré moom laa ko ni noonu as Joosi Omar ñu delluwaat rek man ma la ooyee Joosi Omar laa laa ooyee. kan moy Omar wañu kan moy Omar. wa si gata rek Omar di ko xamne si koñ bi ngeen ko fekkani moy jëm senegal la judo la yaro def yefi ndawam yefi euh musu musuma tukki dem fen ful lu yaga lu wer euh demé fi school yaro fi bokon ci luñu wa was social activities especially football sports in general si gàttal daal kookoy Omar Touré Diossi. Omar lan moo la gën a motivé because man si football laa la xamee sports lan moo la a motivé tey ba nga si mun naa ne ba nga toon sa bopp nekk politicien bi. waaw jërëjëf jërëjëf sa Souare si loolu euh, mooy li ma la wax rek si li ma doon yëngatu la social work bi yow back days xam nga ne koñ yi moom mooy loolu rek bokk si. wàllum sesesal bi wàllum community work euh, football bi play naa coach naa euh, te lépp mooy yëfi leadership rek ame mbooloo ñuy laa ñëwal ngay dema ñoom ba yàlla def ñu am yaakaar ci yow nela la kaay nga jël position bi soo si gaatal daal looloo ñu si dugal. waaw dëgg la waaw parce que man ba maa gën a xaleel ay mag dinañ ko mun a seede dama mosoon a am mbooloo man suma biir morom yi sax dama nekkoon njiit di doon capitaine suma nawetaan team ba pare ñuy kaamee suñ kër dama mos a nekk rek si gàttal te ba maa gën a nekk xaleel boobu sama ma daan pile ko man suma waajur bu jigéen daf ma daan ooyee mooti mooti si laaki soose mooy borom nit. waaw toujours ma mag bi fàttali ma loolu te man maa ngi remember loolu bu baax suma yaay dafa ma daan ooyee loolu ne ma yow borom nit nga waaw. loolu waaw loolu moom lu yàgg ci ñun la ñu ngi sant yàlla bu baax a baax soo ko bàyyee tamit yaa ngi ñëw fekkaat suñu ay nit fii suñu ay xarit ñun jëm Sénégal lañ xam jëm Sénégal lañ am nga amee lu nekk teraanga bu nekk waaw. comme ni ko waxee gis nañ ne ñëpp Omar Touré si football lañ ko xamee ñu jékki-jékki nekkatul fii si yan dans stade so ñu gis nañ ne tey ñu ñëw seet si la fii tey si sa woor ñu am contact trop ñëw seet si gis nañ ne man man nga xam ne moom nga def fii mun nga ñëw faram fàcce si développement nga xam ne moom nga def si sa woor bi. sant ya sant waaw dama ñëw fii parce que man dama amoon challenge bi of lu tax ma ne la lu tax ma ne dama am challenge mooy man man kansula bi ma inherit deputy mayor la woon comme man soo loolu dafa tax ne dama am challenge because of moom deputy mayor la woon am na lu mu fi defoon soo man bi ma ñëwee continuer naa lim doon def ma yokk ci ma yokka ci in essence mooy eh, gën a restructure waat moom lim doon def because ah, léegi la ñu bari xam luy yëfi municipality loolu lépp la ñu bëri xam luy rôle kansula la ba suñ fooy saaxaat because of ah, moo tax ñun young generation bi ñu dugga si politique bi pour make sure rek ne li tax ñu dugga ci mooy dañ bugg a gis suñ boppa si mbiri si ah, gàttal nag li ma def mooy dajale waa naan ndaw yi fi ma mënee man fi ma mënee mooy waalim ndaw yi parce que si loolu laa yëngatu yées yées yëpp passé mooy recruter ay xaleel tàggat ay xaleel woon ay xaleel direction bi mooy ne woon leen ñoom la leen a njëriñ euh, si wàllum yëngatu sports ak wàllum governance wàllum seen jànga euh, ñun si loolu la ñoo yëngatu dem nañ si ay jéego parce que balaa ñun ñuy nekk kansula si yooyu leen doon yëngatu maa ngi doon liggéey si port authority bi waaw man jaam su xeebu si ñu bari ñu ngi liggéey ports man tax naa ñu dugga fa di liggéey ba ma ñëwee tamit as a kansula dimbale naa ndaw yu bari si neighborhood bi Banjul in general ba ñu ngi liggéey si port bi an loolu sant yàlla la am naa fi football team yoo xam ne fekkoon naa leen fi boo xam ne ñun ñoo ñu tàggatoon di jëm seen ñu leen doon oye sport man renforce nañ ko si suñ capacité après créé taat yeneen divisional team muy taat division teams yoo xam ne Karabay leen City la tudda nañ ko eh, entertainment bi tamit. am na réponse yoo xam ne créé leen waaye ñun dimbale nañ leen ba gars dem su beneen level décembre bi jógee nii yóbbu naa fifty people Sénégal from suma woot fii nii Crabbe leen woot yóbbu leen ñu am beneen exposo yóbbu leen dernier Sorano yóbbu leen Mbour yóbbu leen place su bari si Dakar expose leen ba xale yi play football ñiy woy woy ñiy def arts def arts discipline su bari leen yóbbu woon foofu ah, def nañ loolu. am nga travaillé nañ tamit meeg soo rek ne lijjanti nañ ay affaires yoo xam ne suñu indi si dañ koo gis annual gift si weeri koor gi dañoo indi ay mbir jox ko suñ ay suñ ay dëkkandoor parce que ñun si huut bi lañ jógee we know what the people are feeling because ori gars yi ni ñu ko dee waxee rek ñun doomi baadoola lañ ñun si ruuxa bi lañ jógee te bugga naa balaa ngi a dem sax moom leen fi ma jógee fi ma juddoo fi ma yaroo so all the time xam nañ luñ ko fiilee because jëm Sénégal ñun loolooy woon suñ suñ secret bi mooy only koñ bu am ruxa ruxa yi lañ dee am port dem Sénégal mun nga fee duggee fii si na ruxa nga fële box ba because of suñ parents si noonu la ñu yaree noonu la ñu reesee noonu la ñu doon suturawante so ñun luñ am lu ndaw luñ am dañ dee ñëw si huut bi duñ dee bëgg a calculer la lañ spend su ñëwee si huut bi fii sax mooy jëm Sénégal ngir ko luñ koo defal suñ ko war a defal because of uh, yow doo ma bàyyi ma ma ma ma ma wax li ma uh, ma ma olofal olo ko de doo ma bàyyi ma fen parce que xam nga lu ndaw si man jëflante nañ si ay affaire yu bari maa yow balaa ñu agsi si political appointment bi waaye si gàttal daal ñu ngi jëflante ñu war a jëflanteel mooy mag yi ak xale yi suñ religious yëfi religion religion ñu ngi si kawam toppatoo suñ jumaa yi suñ jàkka yi lépp loo xam ne kansul war na koo jox suñ euh, askan bi ñu ngi koo dem laajte si kansul loo xam ne tamit war nañ koo wax si ci council level mooy general council meeting dinañ ko wax although am nañ ay challenges si eh, diggante bu ndaw bi ñaari two years si ni waaye ñu ngi try by all means pour make sure rek ne li ñuy voté in ak li ñuy yaakaaree woon ñu ngi ko def si gàttal daal Mr Suwareh lii daal la mun a waxangum waxtaan bi wéy. waaw ah, comme like. ruuxa ruuxa yi man mun na access to that because fii jëm Sénégal ku ko xam bari na ay po da ngaa ñaay dugg Karabay lan Kuleyaat ñaayaat génnaat dem dugg a Hadintin dem dugg a Stanley ak yooyu loolu moom mun na access to that loolu moom soo ko waxee dinaa ko gën a daal maanaam bon jëm Sénégal dafa nekk xuut boo xam ne mun naa ne mbeeda bu yaatu macha allah bari na ay nit. soo ñu delluwaat léegi nii Joseph because of naka nga mën a boole ah, council bi and bi maanaam ah, ah, suma responsibility bi kon ni nga ko waxee dafa dafa yaatu because maa ngi deputize mayor bi di nekk si errand sam yu bari yoo xam ne yow moom mënu koo def. moo tax ñaareel man foog naa bi ma fi nekkee ba léegi ñaar yoon laa tukki te suma tukkee du ma dee yaaga because of moom ah, njiit la njiit boo xam ne la ñaareel jigéen la xam nga jigéen eh, ñun suñ eh, suñ mbiri religion yee yéen ay fii yu bari du koy mun a atena yooyu man dama ko dee atenal yu mel noonu si jox na ma ay responsabilité tamit si municipalité bi yoo xam ne spécial yi fi opération yoo xam ne cleansing service la ak yeneen a yeneen eh, man maa ko si dee uutu maa fa dee dem pour jokko phone as first first hand information so council bi eh, woor bi tamit dama fi dee ñëw su ma wàccee liggéey wala léegi-léeg su ma wàccut am lu xew ñu ooma ma ñëw ba eh, ba looloo ngi war a tax sax maa ngi war a créer office fii pour information boo xam ne ward banko lii nit ñu ñëw bii ci si suma office nañ ko wax si ni ko won ci World Development Committee office bi bo xamne ñu won suma ñëwé dañ ma fit information bobu non yombut mom parce que diga dem bay ay guuy di uyu ay yena kilifa wala ay yena ndaw si yo xamne seen ay mbir lañ man joxna na ma ay yena jafe-jafe ndaw parce que suma direct responsibility like as a counselor, legi légui not duma ko def de euh daf dee war am ay lapses dama wax te yalla tax because of suma responsibility as a deputy mayor dina muna tok ay legue legui sa suma responsibility rek suma ñewé jëm Sénégal sa duma fi yaga ñu ne rek wala ma dem box ba ak xaarinti yu wor suma bi ma profito walé wax suma word, lanay lanay mabam bi man suma word, moy Krabalen word doré la don kona nga jëlé box ba nga jël belt boobu noonu ba si juma bi on the right side nga duggee police line juma bi moo ñu xaaj ak box ba ward eh, police line ci la booka ah, Haddington boor bi ci la booka sa right soo jógee London Corner soo xamee Banjul nga dugg jëm Sénégal dugga dugga noonu nga duggee tamit Thomas Street nga ñëw ba fële noonu dem Wellesley suma woot du woot bu rëy anyway waaye car macha allah am na ay nit yu bari yu fa nekk parce que woot bi am na barracks mooy police barracks bi te conki Banjul North area bi yëpp afa from Tobacco foofu ëppa nit ko bi so loolu tamit challenge la waaw ah, waaye yàlla dimbale na ma tamit sécurité personnel yi dégg nga fa am nañ discipline ba pare ñoom tamit am nañ seen comité boo xam ne turu foofu loolu lañ ma dee fiite information pour développement ni eh, police line bi Hardington because man ni ma defee suma formation mooy koñ bu nekk am naa fa focal passing koo xam ne moom ma dee wax lii xew si gox bi pour man ma dem si municipalité bi pour lijjantil leen ko delluwaat si si li nga wax rek mooy challenge na waaye àddina bi tamit lu nekk dafa challenge an moo tax ngaa dee jël responsibility waaye yàlla dimbalee na ma rek ne ma am naa nit yoo xam ne dañ nekk si ground bi yoo xam ne dañ ma dee jàppale bu baax a baax jërëjëf monsieur Souare. waaw jërëjëf lan moo tax gis nañ ne nga si politique party lan moo tax nga choose political party boobu ñu nga la euh, man to be frank naa laa dama ko inherit dama inherit UDP in a sense suma waajur bu góor chairman la woon si Banjul bureau bi fii euh, loolu tax na ba nga xam ne man waa UDP maa ngi see gërëmee ku ñëw yaay Kouyaté moom moom ma ñëw approach moom moo ma ñëw scout won ma ne ma soxla nañ la pour nga ñëw continuer sa legacy si waajur bu góor soo looloo taxoon waaye du woon ne amul yeneen parti su ma soxloon bañ gisee ne bind naa suma Facebook page ne dama bëgg a taxaw ase kansula yeneen parti si ñëw nañ approach ma ëppa doole bi eh, eh, naka la tuwaati sa ñoom ñeneen ñi dañ ne ma nekk independent candidate waaye I just choose ne li ma yaaya njëkkoon a wax mais bi xëy na li njëkk a dugg suma bopp bi mooy continuer suma legacy si papa bi loolu dafa dafa tocin torop parce que xam naa suma waajur bu góor ni meloon si UDP parti bi ni mu ko buggee woon ak lim ci def ñun xam nañ ci lu bari soo bem ne ma ñëwal nga continuer sa legacy si waajur bu góor defi ne loolu daf ma yëg daf ma yëgloo torop te ma ne loolu de man. because dafa fekk suma waajur bu góor nelaw te te te li si gën a mooy man maa doona suma posi politique waaye man musuma waxtaana suma posi politique suñ kër mu suñ koo discours comme que yoo xam nga li mooy ne man ci laa laay yëngatu politique moom fii honorable Alaaji Sila moo ñu si dugaloon maa ngi jëlaal opportunité bi di ko sant di ko gërëm ñun Alaaji Sila moo ñu dugaloon si na ñu jàppale ko because suñ nijaay la ñun seetuñu woon political parti bi mu nekka you know mosu ñoo seet na si political party bu ñu nekk ñun dañ seetoon moom as individual mu Alaaji Sila moo ñu yar moo ñu tàggat ci lu bari si loo xam ne si koñ bi la I can fully remember suma pamus na ko wax sane alaaji man bokkuma yow pati waaye suma doom si yow lañ nekk ñun loolu mënuñ koo contrôle you know so loolu taxoon nañu ñu duggoon si politique alaaji sila la woon ma yu bari nag ma jàppale ko bu baax as ndóo bu dëkkoon si koñ bi fii si wàllum politique am moom mu ngi moom mu fii si eh, eh, eh, jotaay bi sa toog euh, pour woon leen rek ne looloo gënoon a looloo gënoon tax maa daan involve si politique waaye ma si kaati benn paati waaye UDP benn ma approché woon ma lim lii ma dem si bureau bi soo foofu la affaire yi dooree so ma dem dem normally procédure si gars yi select ma ma ñëw waxtaana ñi ma war a waxtaanal njëkka suma waajur bu góor mu suma waajur bu jigéen mu ngi doon dunda moo ko mu ne ma ah de politique moom sa waajur bu góor si loolu la nekkoon waaye de du lu yomba lu baree baree ci waaye su fekkee loolu nga bugga a xaaral ma kool awa sila suma ma yaayee si dégg ngi si fen mu kool ah, awa sila ne ko suma doom bi ne lii la bëgg a nekka te yow ko nekka mooy yaay kansula bi yaay député mayor bi soo léegi loolu nu moo demee mu ne ko de man ajaratu jula jaane yàlla ko yàlla yërëm mooy suma waajur bu jigéen mu ne ko man sa dama noppaleku léegi dama bàyyi duma ko defaat xam nga du ma taxaw anyway soo falal lii su ma yaay ne ma a ah, laaj naa kii ma war a laaj soo léegi dafa mel ni kooku su taxawoon doo taxaw duma ma la ñaanal waaye léegi demal Silakunda fi ma de fi ma fi leen ma fekka nii nga laaj ñu alay si la nga waxtaan ñu ñu rafetlu ko be ma waxtaan yeneen kilifa Banjul fii ak suma moromi ku mel ni Paliou mooy suma childhood friend moo waxtaan koo moom although lii mooy démocratie moom doy la dee support ma profité waxaale loolu waaye dañ am mutual respect ak ak ak understanding boo xam ne moo nekk si ñun support na ma suma campagne everything ba moom suy defar flyer yi poster yi sax daf day génne UDP bi xam nga so pour woon la rek ne ñun noonu la ñoo dundee fii politique taxut ñu xaajoo tey la suñ jot a yi gën a ne waaw si gàttal la nii laa duggee UDP jërëjëf. jërëjëf Omar gis nañ ne council bi si si maanaam daal gis nañ ne constituents yu bëri ñu comme lay constituents yi nga xam ne mooy affaire yi gabit bi ñu mbalit bi foo leen si tool jërëjëf loolu soo ma ko waxee dinaa si kontaan trop parce que def naa ko seen interview challenge la nit foog nga nangu challenge nangu ne lii dang si am jafe-jafe waaye ah, ñu ngi si kawam loolu wax naa la ne barki Dembo Ndiaye man see waxtaan ak meeyoo lu yaaga parce que wax si suma biir wax naa la ne man dañ ma dañ ma boole si fi cleaning service ma ma see yëngatu waaye yëfi moto problème la defoon nañ si ay jéego indi woon nañ ay paani mbalit biir Banjul si kër yëpp waaye loolu doyut mun ngaa def indi paani mbalit ñu def si mbalit waaye mbalit bi li koy yóbbu it's very important ni ma waxee yow nii. moto yëpp a paanandoor ñu ngi luwe ay moto waaye incha allah ñu ngi try pour lijjanti indi ay moto léegi léegi ni mu gënee gaaw parce que soo ko soo ko mu ne fàttaleku ne amoon nañ fi EU grant boo xam ne 3 million euros la boobu naa ci dugaale tuuti sax waaye yëfi euh, gabéej bi dinañ ko rectify loolu dafa bokk si components yoo xam ne daf ko rectify mooy yëfi gabéej bi trox su cleansing service bi in particular jërëjëf. waaw comme léegi yow si sa waa yaa ngi wax ne da am kër problème yu moto ñëpp waa ñu am problème yu yow si sa biir waa yaa ngi ne da ngeen di loué moto ñaata moto ngeen di loué. waaw for the eh, now daf dee vary uh, because of léegi-léegi daf dépend na si mbalit bi pression bi waaye dinañ dee mun a loué benn moto ba si ñetti moto. daf dee verre yi moom waaye dépend na rek tamit si presso bu cleansing service bi am because am nañ ay tractos tamit yoo xam ne dañ ko dee def yenn place yoo xam ne su feesee dañ ko dee dem tuuri waaye daal si gàttal daal ba ay ñetti moto dañ ko dee luwe. waaw da ngeen dee luwe moto ba maanaam daal ñetti moto ngeen dee luwe ñaata ngeen dee fay. waaw man loolu mënu ma laa wax exact figo bi eh, definitely mënu ma koo wax waaye I understand ne loolu maybe CEO bi dina doon nekk in the right position pour wax la. ñaata leen dee fay parce que man li ma dee gën a def mooy make sure rek ne li eh, moto bi ñëw na waaye di spending officer mooy CEO bi mooy draw check si mooy joxe eh, ñu fay ak yooyu man li ma dee bugga rek li ma dee def rek mooy ne eh, moto amul de am nañ constraint mbalit bi war naa dem ñu organise mbalit bi dem waaw. waaye Josy yow soo ne ma xamuloo comme like xamuloo ñaata lañ dee war a si moto bu nekk daf maa war a jaxal aspiration yaay député maire te maire bi maire bi su fa nekk yooyu yaay war a yaay war a ñëw in charge soo soo ma ne ma xamuloo ñaata wala ñaata ngeen des si moto yi daf war a jaaxal. dëgg loolu mun na laa jaaxal waaye man jaaxaluma lu tax jaaxaluma mooy ñun ñaari am lañ am si kan municipalité bi ñun political am bi administration bi ñun duñ dee draw check duñ dee sign check ñun luñ dee def rek mooy. demande ba pare yu ah, eh, indi ay loi pour luy yu yóbbu municipalité bi waaye luy spending moo tax ma ne la CEO yi mooy spending officer bi moom mooy dem spend at the end of the day moom moo wax li li li li council bi lii ñu dañ dee bugga rek dañ dee nama ba pare make sure rek ne municipality bi mooy CEO bi teamam bi administration bi def nañ ko waaye definitely to be frank enough du ma dee sign check du ma dee fay kenn du ma dee lifin waaw definitely. Ah, waaye su ceggee dañ ci yëg dara di parce que borom moto bi ñoo loué euh, because man indi naa fi ay moto ay trox yoo xam ne sax sumay xarit lañ dañ ñëw indi ko biir BCC rek euh, def ko rek ngir yàlla because of suma suma suma naka la relationship ak ñoom basically loolu suñ ko defee ñaare lañ de indi ñu fuel lañ leen dee def waaye léegi-léegi sax ma am ñu ma waxaaleel waaye dama leen dee boole. si CEO bi moom mu dem ñoom ñu process ko ñu fay ko doo mun a gis benn cek boo xam ne Omar ture ko sign wala député maire bi oo lii definitely waaw definitely waaw waxuma ne comme like waxuma ne comme sign nga cek waaye lum bon bon bon bon xëj na council bi su ñoo war a génnee xaalis su fekkee ne si CEO bi moo ko approve ak yooyu noonu obviously yow di nga war a yëg ne ok mu ngi génne this kind of amount of money boo xam ne mu ngi dem si troog bi nga xam ne dañ ko loué loolu yow war nga koo mun a xam because of yow mun naa ne you next to the so obviously man soo ma waxee ne ma yow doo dee xam naka la texte bi génnee dama wonda o oh, wala ñiy seetaan ñeneen ñiy seetaan dañoo wonda waaw kii lan la moo wax ni moom mu nekk fa kilifa warut a munut a xam non li ma la doon li ma la doon wax rek dinañ ko xëcca rek di ko xëcca waaye am na de spending officer xaw ma dara si yëfi figos ak yëfi xaalis bi du ma la fenal suma responsibility laa la wax mooy ne dama dee make sure suma gox ak su eh, di suma go ak waa Banjul dañ ne seen mbalit bi demut ma ne ko CEO bi dañ soxla moto man foofu laa lu ñu dam su ñoo jëndi dara du ma ko jëndi am nañ structures yooyu yëpp in place ñoo xam ne ñoom ñoo responsible loolu mooy accounts department bi mooy procurement department bi waaye wala im xaalis bi moom dëgg dëgg xanaa liñ ma dee naka la tuwaati liñ ma fee rek dem di receive waaye man wax dëgg yëfi fii leneen ak ñooñu mënuma koo toog fii wax ko. waaye waaye dégg nañ ne yéen comme ni ko da ngeen di loué moto yaa ko wax te ñu ne moto yi ngeen di loué is for moto benn bu nekk is costing four thousand dalasi benn bi three thousand five hundred dalasi almost seven si seven days yi yëpp almost ten thousand dalasi. Euh, xam nga euh, waxtaan bi su mune nee nga ne dégg nga waaye si ñu ngi ko déggee ñoom mun nañ maa gën a xam municipalité bi si boor boobu. loolu mun naa nekk waaye man munuma laa wax ñaata lañ dee fay every every day man li ma bugga rek mooy moto ñëw na moto yóbbu na gabéej bi si si wàllum cleansing service bi waaw jërëjëf. comme noo ko waxee moto ñëw na jël na mbalit yóbbu na yow nga afta fay nañ ko xaalisam xamuloo lan lañ ko fay ñu delluwaat baax dañ dee luwee moto lu yàggut kansul bi approuve na génne nañ si almost 4 point o 3 point something million dalasi jënd ko luxury car foogaloon ne xaalis suñ ko waroon a jënda jënda moto mbalit foogaloon ne tey ndi am problème bii nii. waaw euh, mun ngaa wax loolu ne dañ jënd luxury car pour kan lañ jënd luxury car pour mayo bi euh, mayo bi dañ ko jënd luxury car bu foo million waaye time bi ñoo jënd moto boobu duñ naan loué moto boobu time boobu compactos yëpp a dem. Gabej bang don dem lolou kan léegi man nga ko soga wara wax parce que man ma ngi as deputy mayor am official ka way man ak mayor bi lolou lañ ko wax suma conscience mayuma ma dem Banjul fi, mu nala won suma moto bi mari dawal is a family ka suma way jigen man ko gërëmaale sa di facture di suma mak suñ taw mo moma jox moto bi may ko dawal pour won la rek ne lolou tax time b, bi biñu waré jinda benen moto pour mayor bi ak CEO be ñenen amuñ moto mbalit so moo tax man ma ne suma conscience mayu ma may jënd moto ñu jënd moto bu ees on behalf of man te amuñ moto mbalit waaye ba ñoo jinal mot mayo bi moto bi time boobu moto yaa ngi dem. waaw waaye aussi time ñu doon jëndee moto bi ñu doon jëndal mayo bi moto si àndoon taw ba soo xoolee mbalit bi sax dañu daan toog ay dees ay dees wala ay yëg duñ gis moto mbalit su bii demee da war a liggéeykat yi ñu war a toog di xaar benn moto soo foogoo ne xaalis boobu noonu ñu jëlee ko dina ko ak ak Gambia nu mu nu mu mel nii especially Banjul nu mu mel wala mun naa ne Gambia nu mu mel yaa taat world country nga war a jël ci almost ak four point something o wala o three point something dina ko luxury car waaye saa ngi am li nga xam ne problème la mun naa garbage is a problem of Banjul foogoon naa ne ngeen gënoon nag xam nga mën nañoo jënd dem jënd luxury car ñu fa amee cash yoo xam ne waroon nañ koo mun a maintenance into standard jël xaalis boobu noonu dugal ko si fooguloo ne council bi waroon a def loolu balaa ñoo use e council money ndaw waa nañ ne génne loolu tamit soo ko wayee dinaa ne you are not fair wala ak meeyo bi in a mooy meeyo bi dafa amoon moto boo xam ne fu mu dem paan te moom mooy meeyo bi gis nga soo demee si constitution bi sax apart from the président meeyo bi moo gën a important te ñaata moto dee toppa président bi lot of ñoo dee yóbbu président bi mais bi paan na ay yooni yooni yoon si aala bi yoo xam ne moto bu bon la amee soo ba pare loolu tamit moom jëlee na moto boobu waaye ñaata développement tamit la créer ba ñaata alal la indi pour loo xam ne dina rectifier loolu bi ko 3 millions euros yu ma wax nii loolu dafa rectifier si lu bari te moom meeyo bi moom moo lobby loolu ba mu ñëw pour waa Banjul soo dañ dañ dee dañ dee dañ dee xoolee fii di war a xoolee feneen bi ko Banjul tamit bu leet am ay. kër boo dem nga fekk fa paani mbalit bu municipalité bi joxe for free soo lu tey musuta am soo su fekkee ne def na lili waaye def na leneen tamit parce que yëfi problème yi mbalit yaaga na fi luñ inherit la waaye tamit ne ne wuñ ko wala du suñ ite loolu amut. waaw loolu moom soo koy du ma wéeri soo ne soo ne soo ne nee ni nga ne ganaar gaa ngi ni da du digga loolu soo koy dina la def na ay développement boot lii sa council entire Banjul la. yaa mën a star du sa alal du suma alal ñëpp la suñu alal la yaa mën a star foog naa ne su waree jënd moto te yow nga ne si sa biir wax yaa ngi wax ne moto bi daf dee paan waroon nañ koo mën a yóbbu yóbbu ko indi standard maintenance ko waaye xaalis boobu noonu moom moo ko lobby fine his a responsibility loolu responsibility am la because we vote for him there yaa mën a star daf ñu war a serve the public yaa mën a star so obviously daf ñu oo a mandate boo xam ne daf ñu because dafa ñëw nañu dafa campé digal baa ñu foofu suñ gisee muy gat moom si biir yaamoon staan moom si biir waxam mu ngi wax ne du ma jël saral maanaam sax soo suñ waree toog ba council bi war a approuve génne 3 point something million dalasi or 4 point something million dem jëla ko luxury car whilst your people down there ñu ngi suffer si garbage bi soo lan nga foog ne lan la people di fit waaw jërëjëf ah, waaye tamit di nga war a nangu ne yow waa nga fi développement yi only luxury car bi mu jënd so Cold Rock sori gaa bi nga wax ko of nga ne jar na four million si li nga wax mun nga ma correct su fekkee ne juum na four million or whatever waaye eh, développement si mu def tamit si yëfi mbalit bi loolu tamit war nga ko war a mun a wax waaye li important mooy li ma la wax mais bi benn moto la am président bi toog fii léegi ñaata motoo ko dee toppa waaw non non luxury car yi ko de toppa because président bi fi nekkoon dafa amoon ay moto ni duñ woon yeneen moto waaye ñun fekkuñ fa moto sax ba ko dawal so moom pour mu am benn moto moom meeyoo bi toog fii nii I don't think ne loolu big deal la Banjul tamit waroon nañoo gën a jox moto bi ay waroon nañoo jox meeyoo bi lu ko escort sax ba ba député meeyoo baa ngi nii two years amul moto so loolu Banjul waroon nañ koo passé so li nga wax noonu yëpp am na luñ ko luñ ko eh, replacé. moom jëne nañ ko moto bu ees ah mais bi mais bi dafa war a am lu gën loolu sax man si man sax moto bi dafa dafa dafa lii war naa moto boobu. Eh, eh, eh, office of the dawal V8 moom lii du V8 so te te te second soo demee si constitution bi sax li ma la wax mooy mayor bi so I moto bi mu jënd ak leneen. Hmm. waaw ñooñu laay waaw Banjul boobu laay tontu tontu turu yow léegi because yow yaa ko waxal turu Banjul. waaw waaw yow yaa leen ko wax la waxal waaw waaw ko jotali waaw. Mm. te na la ñu ngi kaasu mbay noonu te ñu ngi kaasu mbalit yow everyday yow gis na everyday ñu ngi am constat ñu mbalit before korité bi rek almost two si liñ xayma moto mbalit amul soo ñuy war a jël xaalis si kansu bu war a dem di ko luwee ji ay moto mbalit foog naa nee na suñ jëloo moto mbalit ci xaalis yooyu noonu ñuy luwee moto bale jël yóbbu moto dem égal ko maintenance ko ina standard foo naa loolu moo doon gën bala ñoo jël ay thousand of thousand di luwee moto pos moto mbalit yi pour maintenance leen looloo doon ëppa moom moto biñ ko jëndeel because moto yooyu mooy compactos yooyu oncle laay ba jërë yala ko yàlla yërëm moo ko ñun moom si lañ ko inhérité mooy trox su yi yooyu yooyu maintain ko because of système biñ am bu Europe la ay balum lañ dee use munuñ ko woon a maintenance fii si xaalis bu ndaw so xaalis bi was too much waaye mooy li ma laa wax rek ne eh, time si dañ utee ba maire bi di jënd moto bi it was du woon time boo xam ne amoon nañ this kind of constraint one second li tamit sax amaat nañ beneen grand bu mu lobi boo xam ne buleet benn maire musu ko fee eh, eh, lifin lobby fii muy 3 millions euros boo xam ne gis ngeen ko mu ngi door di process loolu dina rectify because liñ xayma mooy dinañ about am about two to three moto si loolu mooy eh, naka ay compactos so loolu rek rectify na moom three million bu ñoo wax because three million euros is lot of so pour loolu rek ah, da ngaa xëcca rek ma xëcca te at the end of the ma bañ ca time bi waaye tig ne tamit waxi gabeej bi I agree ne am nañ si constraint dégg la moto mbal bi nekku di dem ni moo demee waaye du yaaga rek ñu rectifier ko waaye si gàttal daal lii laa la mun a wax si loolu waaw. of course yes of course yes jërëjëf jërëjëf jërëjëf bu baax a baax.